yi bi nga koy door yaa ngi naan am na ci ñoo xam ne euh, ils deviennent inaccessibles kenn mënatul jot ci ñoom. waaw xam nga lan moo yéeme ci réew mi ñu nekk. waaw Mamadou Awa. li yéeme suñu réew mi ñu nekk mooy te yàlla moo ko santaane mooy wàcc leen tolloog nit ñi parce que yéen ay nit ngeen ay jaam ngeen euh, lu tax ngeen bëgg a teg seen bopp foo xam ne nii aggu leen fa. ndax ña ngeen bokkal jamono ñoo rafetlu ngeen jiitu ñu topp seen gannaaw te buñ leen jiitalee dituñu leen teg bët buñ leen laajee audience pour gis leen du ngeen leen recevoir buñ leen téléphoné duñ leen jot boo gisee seen appel doo tontu. loolu c'est valable pour des responsables yoo bokkal parti. alliance pour la république c'est valable pour les responsables yi ma bokkal parti man Abdoul Aziz fii ma toog. Mm-hmm. premier ministre Amadou Ba. mu wur ko ni je le conseil spécial de la présidence de la république su ma ko doon woo ren bët diwoon du ma jël. Hmm? loolu lu yéeme la mais lu ko gën a yéeme amul te xam na xil ni man conseil spécial président de la république la te am na loo xam ne nii Amadou Ba jamono taataan na ko ci man que l' élection locale yi nga xam ne nii am na fi deux mille vingt deux mm-hmm. euh, non lu ko jiitu deux mille deux mille quatorze mais élection locale yooyu. Euh, bari na lu mu tàttaan ci man te moo ko sàkku ma defal ko étude politique ci ndakaaru mhm. ni ndakaaru bindoo boo ci bëggee génn nooy taxawe te Amadou Ba amul yitte yi ni ma Abdoul Aziz la nga ma jot la nga ma joxoon day jot naa ci te mu wóor ma ni jëfandi jëfandikoo ko na ko te wóor na ko ni noonu lay taxawe ci wàllu président Macky Sall mhm. te su ma ko woowee téléphone du ma ko jot pourtant nit la ko xam ne tey jii ni turam mi ngi ñëw bu baax a baax. waaw ci ñuy nar a succéder le président Macky Sall. waaw gis nga kuy succéder président Macky Sall kenn rek ko ko xam muy sunu borom. Mhm. moom rek mooy xam kuy succéder président Macky Sall man am naa yéene mais yéene ju du mat lu dul sama borom gestu ma. Mhm. su ma du ma ci